bijaahi jibril saji suali wa ballighni mablaqa rijali bijaahi mikail habni ni'ma wa nafiyan an min ghayshin karama bijaahi israfil habni isma wa tafini ahwala yawmil ghumma bijaahi asrail kulni ya jamil tula hayati wa kasaba darrahin waj'al tawassuli liman yadu bi saadata daraini waghfirni bi وليجد وللنسي دعاني لنسمي بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالحماية an jumlatil aswa'i wal inaya wa bin najati min su'alin wa adab wa sakaratil mawti rabbi wal hisab wa bil busharati wa bisuri inda mamatina wa fin nusuri bismillahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yi ñu teewlu yëpp te di leen siyaare bu baax a baax a baax si ndigalul sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou mbend di jëw di ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ah, ni ngeen ko gisee nag tey jii nag ñu ngi teew fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi si liggéey bi nga xam ne mm, sëriñ bi da ko santoon kuréel gi ñuy tuddee alali maam Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ Omar Seck mii si sama wet jiite ko ànd ko bokk taalibe yi mu ko àndal yëpp eh, ñu sasoo di liggéeyal Cheikh Fall si ndigal yi nga xam ne day ndigal yu bàyyi ko ko sëñ jëm si kër Cheikh Ibrahima Fall euh, nga xam ne mbaar mii ñuy liggéey tey da bokk muy mbaar moo xamante ni mii sëriñ bi dafa joxoon ndongo yi ndigal si ñu taxawal fi ñaari mbaar yoo xam ne menn mbaar mi dañu fay fas yéenee togge ndogu yi meneen mbaar mi bu nu toggee ba noppi yanu bool yi indi teg ko fa kilifa yëpp toog sëriñ bi génn xool ndab yi daal di joxe ndigal ñu yenn ko yóbbu ko kër sëñ Touba tey jii nag ñu ngi toll si mbaar mii nga xam ne mooy mbaar mi ñuy def si bunt bi nga xam ne bu ñu toggee ndab yi ba noppi fii la ko fii la ñu koy indi nag sëriñ bi génn nag njaboot gépp teew kilifa yëpp teew si kanamam euh, ñu ñu ñu ñu jébbal ko sëriñ bi. Euh, ñi nga xam ne nag ñooy jëwriñ yi koy taxawu sëñ Omar Seck ak ñi mu àndal ñëpp di def si pëstéef boo xam ne bii bu am solo la ndax keroog ba ndigal li tàbbee rek ni ñu ko waxee. keroog la ñu daal di e, laaj sëriñ bi bis sëriñ bi jox leen bis ñu daal di e, tàmbali liggéey bi e, def fondation bi ba génn ko ba nii ngeen ko gisee tey jii ñi ngi génne poto yi mu jëm kaw ñu war ko sëkk nag tey jii ba nga xam ne dina tolloog fondation bi liggéey boobu nag tey jii la sëriñ bi woote woon woo si bokki taalibe bi yëpp nag ngeen ñu fekk si ñi nga xam ne ñooy alali Cheikh Rafal taxawu liggéey bi ñu ànd kook ñoom ñu sëkk ko ba mu fees Euh, su ko defee nag ñu mën a wéyal liggéey bi kon nag kenn ku teg sa bët si liggéey bi da nga xam ne liggéey bu am solo la waaye li si ëpp solo mooy day ndigalu sëriñ bi te sëriñ bi moom ndigal rek kenn booleek moom kenn ku ne ba ngay joxe sa bopp danga ne jébale naa sama bopp àddina ak àllaaxira wax sëriñ bi ne ko loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi waaw kon nag sëriñ bi képp koo xamante ni kii ab taalibe nga ah, sëriñ bi digal la defoo ko xamal ni la nga waxoon ak sëriñ bi yow yaa ko weddi bu la teree bàyyi woot la nga wax ak sëriñ bi yow yaa ko weddi te lii nag mooy ndigalu sëriñ bi te mooy li nuy jariñ ndax kat yoon wi kat li muy rey rey kenn ku ne li lay jariñ mooy ngërëm te ngërëm moom deesu ko mën a am lu dul ni sax si li nu sëriñ bi digal ba mel na ko sëriñ bi bëggee su ngërëm la tàbbee rek muy njariñul àddina di njariñul alaaxira sëriñ bi nag ndigal lii da moo ko joxe muy loo xam ne dafa jëm si ndigal lu mag muy liggéey bu sëñ Touba di liggéey loo maam muy ndogu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal te kenn ku ne xam ne li si des ñeenti weer euh, si lay toll te liggéey bi toll fii sëriñ bi nag di soññeewaat ci bokk taalibe yëpp ndax lii njariñul kese la te kenn ku ne njariñ rek ngay wër sëriñ bi soññewaat nag mboolem taalibe yi fu ñu mën a nekk si biir réew mi ak si bitim réew ñu fas yéenee jokkoo kuréel gii nga xam ne ñooy alali Cheikh Ibrahima Fall ngir mën a tabbi si liggéey bii ngir sëriñ bi kat li mu digle moom bu nu si tabbee dina am bu nu si tabbi am. waaye sëriñ bi dafa yéene ñëpp njariñ sëñ bi dafa yéene ñëpp ak pay ak tawféex moo taxoon muy sàkku saa su ne di soññee ngir ñëpp nag ànd fekk si jëwriñ yi nga xam ne ñoom la jox liggéey bi ñu ànd ak ñoom liggéey bi ba mu àgg si waxtu wi nga xam ne moom lañ ko appal ngir nu mën a tàbbi si liggéey boobu. bu ñu ko loo xam ne ni diggante bi yoonu Baye Fall moom kenn ku ne xam na ko ndigal lu daaloo rek leneen leneen taxaw euh, léegi léegi sax ndigal yi dañuy fekkante bokk na si ndigal li nga xam ne tey. sëriñ bi joxe na ko mu jëm ci liggéey euh, centre culturel bële sëriñ bi doon liggéeylu sa mbakke kenn ku ne xam na ni sëriñ bi joxe na ndigal li te jëwriñ ñi ko war a yaatal danañ ko yaatal ba ñëpp xam ko ñu war ko dooraat euh, ñaar fukki fan ak ñaar si weer wii nu toll waaye nu xam ne liggéey boobee du yàq dara mbaamu gàllankoor dara si liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi du liggéeylu si fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi xam nañ ni euh, lu ko mën a ngi fi ndax pas baa ngi fi bëgg gaa ngi fi dogu gaa ngi fi ak yéene ji te loolu rek mooy li nga xam ne moo mënta ñàkk ci ab taalibe ngir mu mën a matal la nga xam ne moom la ko sëriñ bi digal kon ñun ñëpp nu ànd nag jaajuwaat bu baax a baax xam ne day fii de nekkunu fi di fi sax li nu fi indi bàyyi nu fi mooy jaamu yàlla te sunu jaamu yàlla ak sunu topp yàlla lépp mi ngi si liggéeyal sëriñ bi kon nu góorgóorlu lu baax xam ne liggéey moo nuy jariñ liggéey baa ngi nii nag képp sëriñ képp koo xam ne kii am nga taw féexug sëriñ bi jox la ab ndigal nga di ko jëfe xamal ni loolee nga wuutee keneen ku dul yow li Cheikh Saliou Mbacke doon wax rek yàlla na ko suñu borom fayal te yokkal ñu ay leeram day wax murit bu ne la muy ëppalee moromam mooy la ma ko gën a nuru sama baay Cheikh Ibra Fall loolu yàgg na noo dégg Cheikh Saliou Mbacke di ko wax wax Cheikh Ibra dafa sasoo woon li sëriñ bi war a am li sëriñ bi bëgg moom mu féeteeg moom ba loola sëriñ bi bëgg am ko dadaa wax ne sëriñ bi féeteeg yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam kenn ku ne xam na ni sëriñ bi wet gëm féete woon sunu borom matal na ko sëkk wet gam féete woon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam matal na ko sëkk ba dara du si waaye Cheikh Rafal it wet gam féete woon sëriñ Touba kenn ku ne xam na ni matal na ko ndax loolu moo ko may turu Babul diin yoon yi li muy yaatu yaatu dañuy dox doxinu Cheikh Rafal rek soog see mën a bokk dañuy dox doxinu Cheikh Rafal rek nu mën noo tudde ab murit te loolu Cheikh moo nu ko jëfal moo nu ko liggéeyal wan nu yoon wi nga xam ne moom la jariñoo mooy tax nu mën a jariñu tey ak ëllëg yoon woowu nag weesuwul bëgg ak jëf te yàlla rek tax bëgg ak jëf te yàlla rek tax lool nag la ñu sëriñ bi woo ñu war ko jëfe ni ko sëriñ bi bëggee liggéey bii ñu nekk nag bokk na si ndigal yi gën a far ndigal yi ëpp solo ndax ndigalul koor ndogu yi day ndigal loo xam ne si sëñ Tuubaa la jóge ñëw si Cheikh Ibra Fall daa ko liggéey ba yàlla dogal mu dëkkaale ji ak sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul jëwriñ yi mu fi bàyyi woon di ko taxawu ba tey ji mu egsi si sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda moom it mu war koo taxawu waaye nag mu war koo yokk ndax yoon wi amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am lii nag bokk na si yokk bi ndax bërëb bii Cheikh Abdou Lahad Mbacké yàlla na ko suñu borom fayal moo ko joxoon sëriñ Abdou Lahad moo ko joxoon moo du Fallu lu di wax ni bërëb bu am sëriñ kër sëriñ Touba war naa am kër Cheikh Ibrahima Fall rawatina bërëb bu tedd bii nga xam ne Cheikh Ibra Fall bokk na si ñi ko fàggu ba mu mel ni mu war a mel mu tànnal Cheikh Ibra bërëb bii teg ko si loxoy sëñ Modou Aminta mi doon jëwriñ jo si jamono jooju sëñ Modou Aminta ànd nañ njaboot Cheikh Ibra Fall gépp liggéey ko ba mu àgg mu mu yàlla dogal euh, mu dem dëkkaale ji ak boromam sëriñ Cheikh Jëmm Fall moo it tàmbalee fa sëñ Modou Aminta bàyyee woon daal di koy mottali ba mu mat sëkk tey jii sëriñ Amdi Fall ñëw jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye am taw feexuk Eh, daal di joxe ndigalul kër gii magam yu baax yi saytu woon si ndigalu sëñ Touba day kër gii de seen yéene ñoom ñooñu ñëpp day la fas yéene mottali leen ko si kër gii moo taxoon mu ñëw daal di sanc fii di fi nekk ku ñëw Touba tey ji fekk ko si kër gi mu ngi si biir joxe ndigal li di ko saytul boppam di ko xoolal boppam di ko di ko di ko nemmikul boppam kon nag loolu tawféex la goo xam ne suñu borom moo nu ko tawféexale ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou mbend ñu koy ñaanal yàlla ko suñu borom yàggal lool te wéral ko te nu yàgg si gannaawam yàgg ànd ak moom liggéey bi euh, te ngërëm liñ ciy sàkkoot suñu borom dimbali nu ba am ko nu koy sàkkoo euh, loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne si euh, gàttal rek moom la ñu bëggoon a jottali bokk taalibe yi fu nu mën a nekk si biir réew mi ak si bitim réew ñu xam ne liggéey a ngi ni boo xam ne bu fees dell ak njariñ la liggéey ngi nii boo xam ne sañ Touba gërëm na ko Cheikh Fall gërëm ko liggéey ngi nii boo xam ne bii képp ku si tabbi dootoo nëbb ba mukk seddina képp ku si saw ñàq dugg xamal ne laqal nañ la ko foo xam ne yàq dafa àgg mukk sedd na kon nag nu góorgóorlu si bu baax bañ a bàyyi ba mu rëcc nag ñuy ñuy ñuy xool leneen gannaaw suñ borom taw féexal na nu fekke ko nañu fexe ba suñu ñàq dugg si suñu doole dugg si suñu alal dugg si bu yëpp mënta tàbbeek am na si lenn lu mën lu mën a ñëw bokk na si lii ñuy def tey muy jëf jii nga xam ne tey doole moo koy def rek aku ñaq mbooloo mi daje fi mag ak ndaw góor ak jigéen ñuy tibb suuf si si biti dikk di ko di ko sëkk loolu ab liggéey la boo xamante ne bi si liggéey bi la bokk mënta ñàkk keneen ku mën leneen nag nga def ko si képp koo xam ne kii nag li sëñ bi bëgg taxaw nga ba mu am xamal ni ngërëmul sëriñ bi am nga ko te ku am ngërëmul sëriñ bi dootoo jaaxle àddina doo jaaxle alaaxira kon ñu ngi sant ñëpp di sant nag sunu jëwriñ ñi ne si sunu kanam sëriñ Fallilu Fall muy jëwriñ sëriñ moo deminta euh, sëriñ Moussa Fall Mbar moom it jëwriñu sëriñ Fallum sëriñ moo deminta si ndigalu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg si kanamam mu doon jëwriñu liggéey bi ak mboolem njabootug Cheikh Fall gi nga xam ne dafa séq ak ñoom liggéey bi sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal euh, yàlla suñu borom def ni sëriñ bi bëggee rek nu ma ne ko noona kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ay ca murit liggéey baa ngi nii ay ca murit liggéey baa ngi noonu jëf jël asalaamaaleykum wa rahmatullah